gis kër bu nekk góor goo xam ne day baax waaye doom ji day sàggane lool diine te loolu bari na lool léegi tey ñaata suñuy xale yu góor yi jigéen tey ñoo nekk ñu doyadee diine waaye seen papa yeeg seen yaay nekk ñoo xam ne ñu baax lañ ba léegi sax am na xasta yu ñuy jël di ko jox yaay yi fekk doom yi ñoo ko waral mooy lan mooy sa yaay baaxul fekk yow rek yaa bon sa yaay moom baax na asana moom misi lay déglu moom mu ngi noonu toog kii mooy Assane ki lañ seetaan dundam mi ngi noonu lii rek mooy métier déglu musique grand place kër papaam nga ko dem mariage damiyee carte xaalis seetaan film yu bon tux cigarette lii rek mooy métier kon képp koo xam ne lii mooy sa métier jëlal leçon ci Assane Assane daan la doy leçon bu rëy bu mat sëkk parce que mu ngi noonu di jël ay portable caméra am di caméra ay film yu bon yi génn ci télé ak dëkku dëram gisuñu ko de mu ngi noonu toog lii mooy kër Pape Assane ci salle bi lii rek mooy mecc xale yu góor yooyu gis nga booy disco bi ñëw na mu ne gars yi nam demee ñu ne ñu ngi fee Pape jàngoon ndeysaan julli na géeyam naafilaam jàng quraanam ba pare gis nga ko de mu ngay tëdd pare na mu ngay tëdd gis nga ko de gaa yi ñoom seen mënin lii rek mooy seen mécc gis nga kone kone araam aleyk xam ne gaa yi wax ay ñetti paa yu toog wër taabal kenn ki la moroom ki ko doxal te ñu ngi toog léegi-léegi ki ne ko billahi rey naa mu ne wallahi rey te kenn deewu xoolal mu ne ko xaaral ma filmi mi ñu jot na ma jàpp benn télé bu garaaw mi ngi noonu gis nga de walla mu ne ko filmer garaawul filmer ko rek gis nga lii mooy seen mécc mi ngi noonu gis nga de onze heures lañ commencé balan trois heures huit ñu ngi ne ci kër gi paa bi nelaw ba yeewu di guddi trois heures et huit mu ne waaw gars yi ñu ngi ñu ngi ngoonaar ba léegi ndeysaan gis nga góor gu baax borom kër nii lay mel day toog bu doom yi tëdd moo xool doom yi ndax tes na ñoom déet waaye ñun da ngay ku ne léegi mun naa tëdd dootoo génn say doom fanaan àll léegi-léegi soo seen yaay moo leen ubbi fenêtre bi ñu jaar ci dem baali paa bi ñëw na ci saal bi asalaamaaleykum gars yi waaleykum salaam asana ngi sës ci moom mais du ko dégg lu tax daa dugal écouteur ci noppam bi di déglu musique xasan mi ngi toog di wan ko ginnaaw xarit yi tiit nañu ne ko asan wuyu sa pap mu ne ah ñu ne sa pap mu geesoo jàkkaloo pap mu ne ko dindi li sa noppi nga mën maa dégg sama wax mu dindi ko mu ne acca guddi na dem leen tëdd acca génn leen tëdd asan jogal nga julli nga tëdd ñu ne baax na asan ba suba yàlla asan yàlla asan ba suba su nga de ñëpp jóg nañ tëddi kon ñii lii mooy seen mécc duñ nelaw de amul nelaw vee ba bët set rek mu ne asan jógal nga jàpp nga julli nga tëdd xoolal yaa ngi bàyyi télé beeg di ko muy tàkk bu heure bi yàq courant rek gis nga papa ndeysaan fay télé bi ñu ne suñuy doom duñ fay seeni télé suñ télé xooluñ li xale yi seetaan xooluñ li yaar yi seetaan lu bon ak lépp ñu ngi seetaan rek maasale rek Assane au lieu mu dem jàpp julli mu ñëwaat monte écouteur moom di déglu musique am su kon lii rek muy métti Assane comme suñu xale yu góor yi rek mbokk yi musique baaxul lislaam da koo tere ab jullit du déglu musique kuy déglu musique ba nga dee te boo ko day àllaaxir dañuy xellin ba tax bu tànk ci say nopp gis nga lii rek muy métti Assane ànd ak musique moom ba quatre heures du matin gis dégg nodd ci jàkk ji au lieu Assane arrêté misigam dem jàpp julli ji fajar <laughs> déedéet comme ñun rek ñun weeru koor lañuy ñuy julli ba weeru koor mu taxaw déglu ba mu neex ko mu dugalaat écouteur yi ci nopp yi ñu gën a duggaat mu jaaxaan nag continuer moom su noppoon sa déglu nodd yi waaye mu ngoog gis nga de yonent bi sallallahu tere na koo xam ne jege na jàkk du julli ji jàkk waaye tere na ko déggal nodd tëddaat tëdd kon yéen jigéen ñi am borom kër bu ngeen dégg te noddu jóg ngeen jàpp ku war a sang nga sang te julli ji léegi nag asan ne la woon koy ñëwal de au lieu mu dem julli ji moom fii la tëddee far nelaw xam nga wax dëgg yàlla guddi ku ko nelawut da nga nelaw ah daa mel ni am na gan guy ñëw nag ci asan gan guy yéeme gan gi nga xam ne ku nekk dan la gane ji te bu ñëwee moom bëggul lekk bëggul naan bëggul ndox bëggul xaalis bëggul dara lan la jël lan la soxla si jël ruux gi yóbbul ko borom ruux gi muy malakal mooti mu ngi koy gane si di ko def quatre heures demi jot na wala nga ne trois heures demi yu tegal ay seconde san fi mu tëdd di nelaw rek malakal mawti jaar foofu di ko jël si ngoog am nga gan du bett kenn nag woona ko benn allahu akbar ko xasaan ñaar xasaan ñett mu yeewu rek yem ci jëmm ji taxaw ci bunt bi kon ne bëlet rek yem ci moom allahu akbar kon am nga gan kii amul mag amul xale ku nekk danañ ko yónni ci yow mu jël si kii nag baaxul moo tax mu jaari safara jël fa matériel am di ñëw ñu déglu ni ko waxal ne waxal ne malakal mawti mi nga xam ne moom lañ dénk ruuxu nit ñi rabi àlleeg bàyyi may dan la jël te bu la jël see ca ruu gi delloo ko borom ruu gi asan nag tey mu ci problème mbokk yi ndax dee moo koy néew si di nga ko dem mu ngi naan ko malakal mawti malakal mawti malakal mawti mooy malaka mi rey doomu aadama yi muy sukuraat mbokk yi lii mooy sukuraat sukuraat mooy la lépp loo def ci àdduna yàlla dala ko woon balaa ngay dee mu commencé fi mu nekkee xale fi mu nekkee xale bu góor bi muy tux cigarette bi muy football bi muy nokkatu xale yi mos naa sax sama papa mu daanu ak bi muy nekk nekk safoor ak muy lu nekk da koy gisaat bala muy faat lii mooy sukuraat mbokk yi moo tax jar nañu préparé kuy dee li nga doon def yëpp da ko gis balaa ngay dee ak gaaw gaaw malaaka bi duggul si na ci saal bi da fekk ko ci kaw kanapé mu tëdd mënoo daw nee na ku dund rek da nga mos dee ñu delloo la ca yàlla sa heure bu jotee ba ñëw doo avancer seconde waaye doo retard seconde su ko de loolu la koy reyee mooy weñ googu am ceenu safara mu jëlee ko safara moom lay reyee asan mu koy samp ci kawam ruugi xëcc ko xam nga ruugu bon nii la ko yàlla malaaka yi jëlee mu ngi koy samp ci kawam li mooy malakal mawti mi nga xam ne ku moo la rey ngoog dañ ko préparé mbokk yi di ko déedéet déedéet su ma xëccee sa ruug ba mu ñëw ci sa baat bi sa mbokk yi naan kan moo ñuy moccal mu wér mu wóor la yow ne tey doo wér da nga dellu àllaaxira doo yëg ñoom duñ yëg la mooy sa tànk yëkkati dal ci morom ki dootul mën a yëngatu ma jël sa ruux gi delloo la ci sa borom asan tey mu ngi sukuraat mbokk yi mooy sukuraat ku bon nii lay sukuraatee mbokk day tàng day métti ngoog naka sukuraatu dee ñëw na ci dëkk lii nga sàggane ñëw na ci yow asan dee na mbokk yi mbokk yi dee gi ngi nii dee benn jëmm la boo xam ne képp ku mu daal rek mbokk yi du baax kon nañu góorgóorlu defar suñu àdduna balaa ñu dee di ñëwale malaaka mi amul xarit amul ndey amul doom amul baay ku mu soxla rek dan la yóbbu comme jël na ki yàlla yónni woon mbokk yi du fi bakken kon ñun ñëpp nañu préparé mbokk yi lii mooy dee léegi nag ku baax ruum bu jógee day dem asamaan ku bon nag ruum bu jógee du mën a dem kon nañu ànd ak yéen ñu seetaan asan ruu bi nu muy def génnal ci jëmmu asan ji tey laa lay fay mbugal mu doyadi te la nga daan wax ci yàlla te du dëgg te alquran buñ la waxaan nga naan nit ñi dañuy wax rek yàlla waxut kenn dara tey rek nga ñam mbugal bu métti lii mooy ruu asan mbokk yi mu ngi noonu mënt yéeg malaaka mi ko rey soon mu ngi noonu di génn yóbbaat matériel te safara la ko jëlee woon buy rey ku bon noonu la koy reyee waaye buy rey ku baax beneen xaal la koy reyee fajar jot na pàppi asan yeewu na di yeesi asan pour mu julli li nga xam ne borom kër gu nekk loolu la waroon def di yee ñëbootam ñu julli comme ni ko yàlla waxee ci alquran qu anfusakum wa ahlikum naar dégg nga mu ngi koy woo ne ko jogal julli jogal julli asan nit ñaa ngi nelaw di nit ñaa ngi nodd yoo ngay nelaw jogal Assane jogal nga ruu gi mu ngi noonu su waxee kenn du ko dégg waaye moom day dégg waxu gaay yëpp ndax lii mooy ruuxu mbokk yi Assane papa ji yégul ba laal Assane Assane dëkk génn naa dund mu ngoog Assane génn mbokk papa ji am na lu ko métti ndax ni Assane deexee neexul ko papa ji commencé jooy mbokk yi waaw sa ruu gi de buqi na ay bëtam xam ne tey du baax le mbokk yi ruu ku bon nii lay mel du yéeg benn yoon ci kaw asamaan loolu la yàlla waxoon naan laa tufattax lahum abwaabu sama wala yadxuluuna al janna xataa yalijal jamal fi samil xiyaat kenn du ko ubbil bunti asamaan du yéeg te moom du dugg aljana mukk loolu gëlëm moo jaar ci bon bonu puso ba génn loolooy tax ku bon dugg aljana kon moom du dugg papa jaa ngi noonu di jooy mbokk gis ngeen ko lii daw na yaram asan moom bokk tut ruu gi ñëw di wax ak papa ji mais papa ji du ko dégg léegi asan dem na wax ko sangakat bi ñanal ko càngaay yóbbul ko ñu ngi xotti asan càngaay mbokk càngaayu asan a ngóog gis ngeen ko de kii mooy sangakat bi noo ngi gasal asan mbokk yi lii mooy bàmmeel fii mooy kër gi nga xam ne mooy këru wéetaange mooy kër gu xat gi mooy kër gi nga xam ne ay sax rek lay ganale mbokk yi fii mooy kër gu bees gi nga xam ne ku fi dugg lu la fi màtte yaa ko fi yóbbu nañu préparé bàmmeel mbokk yi fii mooy titre foncier kër yi ay titre lañ mbokk yi nañu préparé xam ne bés bii Assane ñëw tey ñun ñëpp kenn ku ne am nga ko dañ la fa suul bàyyi la fa yow dong cundum kon nañ ànd ak yéen ci Assane ñu ngi koy gasal bàmmeelam mu ngi noonu àll baa ngoog xar yaa ngi ko yenu jëmale ko ca morgo ba ngi jooy mbokk yi fi jooy du fi jëriñ yàlla na yàlla yërëm yow jaama bi yàlla bi yarxamakallah ya abdallah sangakat bi ñëw na mu ne leen ma ko ci kaw morgo bi gaa yi jàpp gis nga nanguñ koo laal sax ci seen xarit la ci benn basang lañ ko teg lañ des yégal ko ci kaw morgo bi fi ñuy sangee néew tëll ko ci kaw ndeysaan du naa ngi nii de moo tax ku wax ne du woo dara nga weddi ko wallaay du woo dara ñépp a ngi taxaw tey dellu ci yàlla laa ilaha illa ngoog ruu gaa ngi noonu taxaw tiim ko gaa yi ko indoon ñu ngay génn da ko bàyyi ci morgo beeg sangakat bi ko def fii mooy place bi nga xam ne fi la doomu aadama di mujj tëdd ci kaw suuf su fi ko buntu jàkk lay tëdd dem ci bàmmeel ya mu ngi nii ruu gi mooy jooy noonu di yëngal loxo yi xarit yaa ngi noonu di jooy ndeysaan suñu ko de am nañu luñ métti fanaan ak xale yan doog moom ba ngoon yàlla jël ko ndeysaan mu ngi noonu de ngi naan laa hawla wala quwa illa billah amul pexe amul kàttan ku yàlla ruu gi mu ngi leen topp ruu gaa leen topp naan bu leen dem bu leen ma bàyyi ci morgo bi xarit yaa ngi jooy ak yaay ak papa ji ruu asan mu ngi noonu moom day dégg seen wax waaye moom waxam kenn du ko dégg da di gis mais moom kenn du ko gis ñu kaamil comme ñun rekk ku dee ñu wàccal ko kaamil seetuñ ndax moom mérito na ko wala mérito wul jàngkati kaamil dañoo yàkkanti sax nit dee bañ laaj ab som lekk léeg-léeg sax ko jàngee na mu waree kon ma est ce que lii moo taxoon alquran wàcc déedéet mbokk yi alquran daa wàccoon tunzira man kaana hayyan ngir ñu waar ñi nga xam ne dañuy dund ku dee rek alquran ja wàccoon ak yow te ruu as na googu foofu rek seytaane bi àndoon ak asan di ko neexal di wër ak moom di ko yàqal di ko def loolu bon moo koy woo léegi génnee ko ci nit ñi ndax asan bokkut ñu baax ñi seytaane bi ñëw ca bër naa kër ga taxaw léegi ngeen dégg mu woo ko su ko de koo xaritam la mu ngi tàggoonte papa bi di ko jaale asan ñu ngi koy wàccal kaamil rek seytaane bi woo ko woo gi laa ilaha illa seytaane bi ne na ko ñëwal du bañ ni koy ruu gi tey day gis seytaane te mës ta mën gis seytaane ndax la taxoon du gis seytaan te yàlla dindi na ko fa kasaf naa anka xitaaka fa basruka l yawmal ko kaay mooy ñëwal ñëwal ci man asana ko dégg wuy ji ñi toog duñ ko dégg ngi noonu di génn nit ñi di wuy ji seytaane bi su ko ne seytaane mu ngi armé wu war a wax ak asan moo tax ku bañ a jaamu yàlla seytaane bi moo la jàpp ngoog mi ngi noonu taxaw seen buugi mu ree ko da ko yow Assane taal yaa Assane man maay sa xarit man maay sa àndandoo ba ne ko sama àndandoo mu ne ku bañ a jaamu yàlla yàlla boole laak ab seytaane mu nekk sa xarit man maay ki nga toppoon dipp ay at ba nga nekkee xale ba nga ba nga nekkee mag diggante jamono boobu yëpp maa ngi ànd ak yow ak place boo taxaw man nga doon àndal yow maay sa xarit maa daan mosal neexatu mooy yàlla ma nekk ci sa xol bi ak sa xel mi amoo kenn koo gëmoon ci àdduna ku dul man ku wax nga ne ko góor man nga xamoon ci say xarit maa daan ànd ak yow man seytaane amoon xarit bu baax sax xar man nga toppoon bàyyi santaane yàlla yi sa dund yëpp mu ne kon di alkuna mu ree ko mu ne way man alkuna ay waay man perte na yaa asarata yaa asarati woonaa sama perte mu ne ko man maay kil doon moñal dana ñamal neexatu mooy yàlla booy déglu musique ma def ko mu neex ci yow nga mel ni yaa ngi aljana di bonde di fecc yow miskin nga tey amatoo dara mu ne ko at yooyu yëpp mën nga daan àndat nga yaakaar ne yow ab gor nga ab bondekat ga waaye tey ñàkk nga ñaari yoon dund nga perte ci àdduna àllaaxira nga dem bugg safara maa la daan topp di wax ak yow nga yaakaar yaay jàmbaar tey nag jeexal nga àdduna yaa ngi jëm àllaaxira tey la la nëbboon yaa ngi koy gis sa bët ak say xawaasu xam sa yëg-yëgu juróom yëpp tey ñàkk nga ko yaa ngi may jàkkaarloog man la taxoon daanoo ma gis tey yàlla muri na ko yaa ngi may gis nooy def nag yàlla ma nga doon mooy man maay sa jëf ju bon ji nga doon àndat foo daw jëm tey fan nga daw ci man jëm tey munoo ma daw raw ma tey alquran ñëw na ko sa bët yi yàlla muri na ko yaa ngi may gis te mosoo maa gis da nga sàggane woon jaamu yàlla seytaane bi ne ko nag yow bés ni ki tey kenn gisut ma ku dul yow kenn du torox ku dul yow kenn du la dimbale fii léegi ñu ñëw sangee la ndox mu sedd ma andil la ndox mu tàng roose la sangara ndax loolu nga mérito. ma sangee la ndox mu tàng jër tax loolu nga mérito tey ruu asana ngi noonu ak jëmm asana si ñaar yëpp ñu ngi doon tenn jëmm ji mooy la tëdd na la ruu gi mooy la toog nii mu ne ko jogal nga dellu ci biir jëmm ji nga fekkee sanga bi ma sangee la ndox mu tàng mbokk yi nit bu faatoo buñ koy sanga da koy yëg ndax ruu gi day del saat ci moom day dégg ñu koy sang ñëpp ñu koy sang ak ñëpp kon mbokk yi mu ngi doon tëdd gis ngeen ko de tey mu lànk di meesu di émaay yu def xeesal boo ñëwee fii tey ñu firi say mees tey ñu xoos say émaay waaye xeesal bi kenn des xeesal bi kenn du la ñuulal loolu ngay teewee ci kanam jënga ruu gi mu ngi noonu xool leen ko mu ngi noonu duggaan na ci jëmm ji daa dugg ba pare rek sangakat bi ñëw indi ndoxam mu sedd futti commencé di sang seytaane bi moom indi ndoxam mu tàng di sotti si ngeen ko di ko ree <laughs> ne ko ñamal li nga méritoo danga ngaa torox wa waa ji wal sotti ndox mu sedd seytaane turk ab seenu safara sotti moom ndox mu tànk xool leen fii rek mbokk nit du dara mbokk allahu ne yàlla jéggal gis nga moom mu dóor lii mooy métti ku bon nii lañ koy def mbokk yi ci jaamu yàlla rek moo wër sotti na beneen côté bi seytaane dóor aw oh. laa gis nga de lii rek mooy ku bon bi sotti ndox mu tàng waa ji walbati mu sotti ndox mu tàng moom gis nga ko de ne ko ñamal lii nga mérito pare nañ ko mbokk yi sang bi noo sang càngaay laa ngoog mbokk yi weex tàll pare kaa lay doon wala malikaan tey doo sol borode doo sol ganilaa doo sol dara mëlikaan wala perekaal lii mooy sa yére bi mucc ci sa yére yi xam ngeen ne perekaal yàggut moo tax buñ la suulee du yàgg rek mu nëb waaye nag comme dañoo bëgg gis asan moo tax muuragul kanam gi da ko sànganoon rek woo gars yi ne kaa leen xool asan xarit yi dugg si ak papa fi mooy dernier gis bi ñuy gis asan jëmmam ndeysaan papa jooy mbokk papa di jooy mbokk nii léegi nag mu ngi yóbbu Assane mbokk yi ci armeel yi pour suuli ko gis ngeen tey lii la nit di xaar doomu ndey film bii de bokk de yenn film yi ñuy seetaan télé nañu delloo suñu xel ci yàlla ñu tuub jaamu yàlla ñu ragal yàlla préparé bis bu ñuy jëlee ci biir kër yi jaar lañu ca morgo ba jaar lañu ca jàkk ja yenn ñu romb grand place yi romb mbedd yi romb kes que pied mi daan nga jënd pied mi te daganut daan nga naan sàngara daganut mbokk yooyu yëpp moytu nga sàngara ak musique l'islam da ko tere ab julit ak sol lu gàtt ak lu seere ak lu yaraax mees emaay xeesal ku def na ko dindi ab julit bu jigéen day ni julit bu jigéen ab julit bu góor day ni julit bu góor bañ a takk ay seen ak góoru takk ay seen ay jaaru ay lam bën na noppam nas ci mbokk yi ku def na ko dindi ab góoru julit day nekk julit bañ a nekk koo xam ne euh, day nekk rek comme niñ ko xamee nekk benn rappeur wala benn bandi waaye tam mu bañ a nekk koo xam ne day meesu di émayu di greffage ba dee léegi ñoom ñu ngi ko yóbbu di sikkar lii de moom suñu réew la naan ki fi sax ki fi dëkk koo koy yàlla suñ ko de xam nga ne bu ñu yëgoon li daal Assane ginnaaw ba lañ ko yóbbu kon duñ ko defal lii gaa ngi nii ànd ak ñoom tiit moom day jooy rek xam ne du baax la léegi ndekki Assane bi ñu koy yóbbu benn xaj moo yëg ci koom tëdd ci koom xaj baa ngi noonu mbokk yi ku xaj bi mooy yëg sa kaw tëdd wala mbaam wala golo mooy ay gunge ba sa biir bàmmeel xaj baa ngoog mbokk yi kii jëfi Assane ju bon ji mu doon jëf moo soppeeku benn jëmm bu toll nii di ab xaj yëg ci koom xoolal ñu ko yenu mu ngi diis gann ci ñoom te yëguñ ne xaj lañ yenu ak nit ñoom ñu ngay sikkar di dem wàcce nañ ko kaamil jullee nañ ko sanga nañ ko ñoo ngi ni def ko sikkaral di dem te jëriñu ko dara mbokk jëf rek moo am solo loolu nit jëf loolu lay fekk xelam moo tax léegi-léegi ñu naan jigéen jaamu yàlla mu naan yàlla baax na yàlla soxorul yàlla rek yàlla soxorul walaay soxorul àllaaxira yàlla xol lay fay xol bi jaamu yàlla lay fay waaye du ab bandi boo xam ne yàlla kooku mbokk yi euh, bu dee bokk yi dee nañ ko préparé ruu gaa ngi noonu naan ziino lillah ay bu leen ma yóbbu waay ragal leen yàlla bu leen ma yóbbu ngeen ma jëmee bu leen ma yóbbu gis nga leen ci bàmmeel ya bu leen ma yóbbu papa bu ma yóbbu ali bu ma yóbbu Ousmane ay xaritam nga ruugi de ndax xam na ne bu demee bàmmeeli du baax ngeen ko de delloo ji leen ma ci kër gi ku bon buñ ko yóbbu dinaa wayli wayli ilaa ayna tuqaddimuuni alkunaa fu ngeen ma jëmee azan bu leen ma yóbbu ci bàmmeel yi wala xaj baa ngi noonu jëfam bu leen ma yóbbu delloo leen ma delloo kër bu leen ma yóbbu ali ali delloo ci kër gi bu ma yóbbu ngeen ko de du bëgg a dem ndax lim def baaxul xam ngeen ne ku def lu bon bañ jàpp la war yóbbu doo bëgg a dem mbokk yi nañu moytu film yu bon yi ñuy seetaan mbokk yi jigéen yi nañu ragal yàlla jigéen day muur yaramam muuraay mbokk yi du aada naar muuraay santaane yàlla la yàlla ko wax ci alquranul karim kon seetaane bi ñëwaat na ku muuru ci ñun rek ñu la yow da ngaa nekk ibaadoog aada naar déedéet mbokk yi muuraay santaane yàlla la yàlla wax na ci alquran yaa il bi ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم yow Muhammad waxal say soxna ak say doomi jigéen ak bépp jigéen bu gëm yàlla ne ko na muur yaram kon mbokk yi muuraayu jigéen farata la comme ni julli nekkee farata ci moom moo xam mag la wala xale dem majeur na rek daa war a muuru ñu bàyyi li ñuy wax tey ku su doom muuru nga ne da nga tas àdduna bi da nga tas koñ bi sa doom ji nga gën bëgg mooy kii entre xale yu góor yi ku nga gën a bëgg sa doom góor bi nga gën a bëgg mooy rapport bi wala simbakat bi nga xam ne meesu emaayu la def méccam dangay gis sa góor guy xeesal mbokk yi kon nañu xam ne loolu du mbiru góor du mbiru jigéen lislaam da ko tere ab julit day nit xam ne ab julit la bu fekkee ab yéefar nag mu nekk ab yéefar kon nañu ànd a yéen ci asam seytaane bi ñëwaat na ci moom baw gut jege bàmmeel rek mu ñëw wax ak moom ni ko kanaa waxuma la woon ne <laughs> ko bàyyi de xanaa waxuma doon sa bët yaa ngi may xool tey la taxoon doom gis yaa ngi gis lépp dëgg-dëgg nga koy gis waaye ñi la yenu ay miskin lañ ñoom ñi ngi nelaw de waaye bisu ngi ñëw ñu yeewu comme yow ni nga yeewu da nga doon nelaw yeewu nga tey tey de boo dekkoon dellu ci àdduna danga nga jaamu yàlla xaj bale nag ci sa kaw mooy sa jëf ju bon yi nga doon jëf ci kaw àdduna musique baak xale yu jigéen yi nga doon entré ak yëpp moo nekk xaj boobu nekk sa kaw lii sa ñaari loxo yee ko defoon sa ñaari loxo yee defoon bakkaar bii rek alquran ñëw ne bés bi nit di gis ñaari loxoom lam defoon ci ay bàkkaar yéefari di jooy naan yal na mën a yàlla def suuf di ko de mu ngi naan ak neexoon ma nekk tey suuf du ma dugg safara yàlla def ma suuf balaa may àgg ci bàmmeel yi gis nga de bàmmeel bàngoog mbokk yi bàmmeel bàngoog bàmmeel bàngoog mbokk yi xaj bi nekkoon ci kaw moo koy jiitu ci biir bàmmeel bi gis ngeen ko de jiitu na ko ci pax mi de ko aar lii ngay dégg ñaar nit ku ne jëfam moog moo may ànd ci pax yonent bi ne nit bu faatoo ñett koy gunge alal ji du génn kër gi ca kër gi lay yem ne ko man nag dew ma ca bàmmeele fii laa yem ay mbokkam a koy yóbbu suñ demee buntu bàmmeele lañ em dootuñu dugg ci biir waaye jëfam ju baax wala ju bon mooy ànd ak moom ci biir pax mi comme Assane nii moom defu doon lu baax baaxu doon defu doon jëf ju baax tey xaj bii mooy jëfam ju bon ji moo koy xaar ci biir bàmmeel bi buñ ko dugalee bàmmeel bi di ngeen ko li mel di tàkk safara xaj bi war ci kawam kon mbokk yi ku bon na xaar lii xanaa mu tuub rek balaa muy dee wa illaa lii moo koy xaar ci ñëw xaajilan aw aajilan nga ni bàmmeel bi tàkkee safara ñoom duñ ko gis kenn du ko gis lii kéemaanu yàlla la mbokk yi gaa yaa ngi sikkar ñoom yëguñ ci dara ñoom allahu akbar danañ sax fi te dootoo dee ak am nguur yàlla rek ko moom wallaay wax ngeen dëgg su nga dee ruu gàngo mu ne hé araam na ngeen suul bu leen ma suul xanaa nekk moon seen xarit bu leen papa Ahmad Ali bu leen ma suuf di suuf si ah, ko xoolal sa kanam gis nga pax mi mooy sa kër gi la doon xaar fi nga jëm si tey kër gi nga xam ne yàgg lay xaar sa yow rek la doon xaar ay saxa fi nekk ak lëndëm ak wéetaange fii nii fii mooy bàmmeel mu ne ko nga ne la yàlla ne doomu aadama fu ñu ko reyee rek ñu suul ko seytaane bi ne ko mu ngoog ne ko fii sa yére yi ñu la solal fii lay xotteeku sa yaram bi fi lay tas sa e, tànk yeeg yeew beeg yëpp fii lay des fii ngay sax dootoo fi jógee fii boo baax le wut fii la la dëtt ji fekk la naan nga ci naan ak ndox mu tàng meeg safara kii mooy bàmmeel dugal leen say xarit yi la indi nag ak say soppe léegi ñu dugal la ci suuf si ñoo lay suul ak sa papa buñ la suulee ñoo la fi romb yow kenn fi des yow dong nga fiy des fi lañ lay suul ah ndeysaan dugal nañ ko ci biir pax mi allahu akbar ndeysaan allahu akbar وتركتم ما yàlla ne na ko yow dong yaa ñëw la laqad naa furaada ñëw nga yow kenn dong yaa ñëw comme ba ma lay bind na nga juddoo yow kenn la taxoon nag jaamu xooma nga fuuy te yaa ngi ko bàyyi ci àdduna yow dong yaa ñëw ku dee rek yàlla wax la baat bi buñ la suulee bu ñu demee rek yàlla ne saabu wa tarakuuka wa fi turaabi dafa nuuk walaw sallu maaka ma nafauk walam yabqa maaka ila ana ana hayyun lasi la amut limanil mulkul yawm gaañi la suul dem nañ kenn desu yow man nga bañ a jaamu tey kan mooy buur te ci biir suuf lañ la suul ñu ngay dem mbokk nañu préparé bés boobu gaa yaa ngi koy suul mu naan alkunaan man alkunaan gaa yi koy suul pare wuñ sax yàlla wan wan ko kéemaan dañuy suul rek bàmmeel bu tàkk safara rek allahu akbar laa ilaaha gi ne bërëb ñu seen ruu benn seenu safara amatul jàmm xëcc ko jëmale ko ci biir bàmmeel bi mu ne yàlla delloo ma rabbi irji'uuni rabbi irji'uuni allahu akbar yàlla delloo ma adduna yàlla delloo ma adduna xoolal bàmmeel bi muy tàkkee mbokk yi yàlla ne ko déedéet baat boobu yow da nga koy wax tey rek la fii la yem ne yow sa bàmmeel bii ngay tëdd ba yowmal xiyaam doo fa génn dellu jeex na mu ne noonu jaamu yàlla nga bañ mu ne yàlla boo ma delloo ma jaamu yàlla ma tuub yàlla na ko jeex na dootoo dellu malaaka mi xëcc ko dugal ko ci biir safara si mu commencé di yuux mbokk yi xoolee li mbokk yi daw na yaram métti mbokk yi ku baax du mel nii ku mbon rek ba dee ci mbon moom la yàlla mbugale nii tey mu ngi ci biir bàmmeel bi mbokk yi di yuuxu ruu gi mooy yuuxu jëmma ko yàggan ruugi ci biir safara bi ci noonu lay nekk ba yowmal qiyaam bu fekkoon ne tam ku baax la noonu lañ koy xéwalee aljana ba bés ci mu yàlla kon ñu dem incha allah kon mbokk yi asan mii ku yàlla bëgg la gis nga de ndekki asan yëpp yàlla da ko dimbaloo mu koy gént gis nga fi mu yeewoo daa yuuxu ba wóogmaan bi daanu mu daanu ci suuf si di yuuxu xam ngeen ni ku gént gént gu mel nii moo tëddaate doo nelaw mukk léegi nag mu ngi yuuxu ba set na mu ngi yuuxu naan yàlla delloo ma yàlla delloo ma ci ak lu ma jaamu yàlla yàlla delloo ma yàlla delloo ma soo ma delloo ma tuub ma jaamu yàlla foofu rek lay yeewu ah kon nañu déglu ndax dana tuubam déet ku yàlla bëgg ngi nii ndax bu ko yàlla bëggu doon du ko gént loo lii da koy bàyyi ci li mu nekkoon di caaxaan ba yàlla rey ko te mbokk yi ku dee ci caaxaan rek yàlla dañ la mbugal kon nañu tuub ndem diggantuñ lii waaye gis nañ lu mel ni mbokk nañu tuub dellu ci yàlla ndax la mun ñu yërëm jéggal ñu ànd ak asan déglu ko lay mujj nañ ko de tiit tiitaangee ko jàpp mënta taxaw sax xam ngeen ku tiit moom du taxaw tànkee damm asan moom te papa ji dégg yuuxu yi daw génn ñëw ne ko asan lu xew asan lan la loo yuuxu ci guddi gi ci fajar gi rek mu song papa ji mu ko song papa di yuuxu di jooy mu ngoog naa papa damaa gént di nettali papa gént gi di yuuxu ngeen ko de kon baaxul mbokk yi papa ji xam nga lu mu asan demal jàpp set julli ñaar rakk nga tuub ci yàlla yàlla dalaa bëgg balaa ngaa dee ci bàkkaar asan boolewut ci wax dem jàpp waaye mënut taxaw mbokk yi tànk yi damm nañ lu tax ndax tiitaange mbokk yi ku tiit rek doo dox bii day dana dégg mi ngi noonu toog te pourtant asan jàngoon na daa kàccoor xoolal tey mi ngi noonu di kabar tey de loxo yam doon joxe jigéen ñi loxo ak di cëpp cëpp tey de bana ko góor du jox jigéen loxo xanaa muy jabaram wala yaayam tey mu ngi nii di julli mënta taxaw di nga ko ne mu ngay tuub di ñaan ci yàlla di jéggalu di jéggalu di jéggalu yàlla di jéggalu yàlla di tuub ab jullit day tuub mu ne yàlla li ma gént yàlla bul ma ci rey yàlla bu ma ci dugg safara bu tàng bi ma gént yàlla del nga ma ci musal pour yàlla musal la ci tuuba rek moo gën a gaaw mu sujjootal yàlla sujjoot bii mbokk yi dana wuteeg suñu sujjoot yi sujjootal na yàlla léegi nag nee na tumaranke woon naa ci àdduna allahu akbar su jootam mu ne ba may dee amoon naa njàqare loolu lay xalaat léegi gis nga fi muy sukkuraat loolu lay xalaat mu xalaat mu ne bàmmeel bañ mu fa dugalee man dong nga fa nekkoon kenn wettiliwut ma ci ndeysaan wax na dëgg de mu ne bañ ma tegee ci tàdda ga dama yóbbu ca morgo ba maa ngi amoon njàqare man dong kenn yëgut kenn bokkut kon yàlla maa ngi la ñaan nga jéggal ma ba samay bàkkaar balaa may dee bañ ma yenoo itam xaj baa ngi yoon sama kaw man maa yëg diisaay bi ñama yenoon sax yëguñ lu yenu su loolu lay xalaat ñun ci su jotam mu ne yàlla suturaal ma ci àdduna ak àllaaxira ngeen ko de te nga yërëm ma ndeysaan nga yërëm ma ca siraat mu ne ba ma dee ña ma doon walbati samay xarit ñoo doon walbati samay loxo samay tànk ñoo ko doon yëngal mënu ma ko yëngal mu ne ñu teg ma ca kaw sangeekaay ba dama sang kama doon walbatiku nag bu ma tëddee mooy walbati dama sotti mooy sama dëkkandoo bu baax bi mbokk yi fii jar na xelaat nañ xaritoog nit ñi nañ jubóog nit ñi ne bëgg ñun kenn nag xamut ñun kan boo dee kan moo lay sang kon jarul mbonde jarul mer ki nga mere mën naa boo dee moo lay sang ki nga luyee sa kër di ko xatal mën naam ëllëg mbokk yi bis boo dee moom mooy njëkk ci yow kon kooku nañ ci bàyyi xel am kër luyee ko ña nga luye ca kër ga ay nit lañ comme yow na góor góorgóorlu baax ak ñoom jubook ñoom dëkkandoo yi jubóol ak ñoom imaamu jàkk ji na la xam jàkk ji na la xam del julli bala lay jullee del sàng yaram bala lay sàng nekkal ci kanam nit ñi bala ëllëg ngay wéet ak nit ñi yow dong mbokk yi kenn xamul boo dee ku lay sang ak ku lay toppatoo kon nañu laa biir noonu lay mel ñu ànd ak yéen lii yëpp mu ngi koy xalaat gis nga ay xaritam ñoo ko yenoon de kon xamu doon ne bu dee xarit yi ñoo ko yenu tey gis nga xarit yaa ngi noonu yenu ko di ko yóbbu mbokk yi sujjóot bi yàgg na allahu akbar laa nag duñ julli la mooy koor ba koor mbokk yi wala xanaa ñu boloke waxtu julli doo julli mukk dangay ngay dajale waxtu julli ba benn ba heure nga ne da ngay fay yóbbu déedéet waxtu julli inna salaata kaana alal mu'miniina kitaaban mawquuta julli daa am heure bu heure ba jotee jogal joxe ko def ko ca mbooloo ma moo gën a moo gën a baax wala xanaa nga nekk jigéen boo jigéen moom sa néegi ëpp tiyaaba waaye du góor moom bul jullee mukk fulul jàkk ja teel la dem julli bul tarde juma te sangu di sol yi set ab jullit bi lay mel itam bu ñuy yóbbu nit ku dee ter nañu ñay yóbbu ñay gàddu tàdd ga ñu takk ay seen wala ñu takk ay lam loolu lislaam da ko tere di wax di xàqataay di taal portable loolu lislaam da koy tere gis nga mu ngi ci bàmmil di siyaare si bàmmil am na tegg ni ñuy siyaare bàmmil soo ñëwee nga nuyoo nuyoo lislaam ne asalaamaaleykum al qawmul muminin wal muminat antum ala alhaq wa nahnu ala albatil insha allah sa ulayiqukum yaxfiru llahu li mutaqaddimina minkum wa mutaaxirin nañ ko jàng mbokk yi du dem ci bàmmeel yi rek xulle bàmmeel boo fa demee am na loo war a def ñu bañ a toog ci bàmmeel yi bu ñuy suul lislaam tere na bu ñuy suul néew ñu toog ci bàmmeel yi ay faatee falaqi naas yi baax na lool waaye du pour bàmmeel bàmmeel bu ñu fa dugalee ni la bi jàngale yal na ko yàlla yërëm yal na yàlla jéggal yal yàlla dëgëral làmmiñam bu ko malaaka yi laaj mën a tontu loolu moom la yonent bi daan def ci biir bàmmeel yi te moo ñëppoon xam-xam ci moom la alxuraan wàccoon tey mu ngi nii siyaare si bàmmeel yi nañu xool ab julit day dem ca bàmmeel yi di ko siyaare ndax di fàttaliku dee bàmmeel yi mooy si tëj leeral dafa nekk ñëpp a tolloo moo xam buur nga wala góor nga wala jigéen nga mag nga wala ndaw nga ci suuf nga tëdd suufa la sàng kenn na doxul sa diggante ak suuf si sëriñ mënu fa dara taalib mënu fa dara jëkkër mënu fa dara bàyyi mënu fa dara mbokk yi bàmmeel yi moo ñuy xaar nañ ci mooy tund ko nañu góorgóorlu te asana ngi ci bàmmeel yi lii itam dañ ko tere ci ay bàmmeel tabax yi lii lu lislaam ko wéet rek demal mag xool baqi a madina baqi a boo fa demee te armeel bañ suul lenn ci saaba kenn du ko tabax bàmmeel boo ñëwee bàmmeel ñoo gën rafet léegi kër yi lu ne def ci bàmmeel ab julit duñ ko tabax du tabax koo tere ab julit du toog bàmmeel ab julit du ñaan jàkkaloog bàmmeel di ñaan boroom bàmmeel déedéet borom bàmmeel da ko war a ñaanal yàlla yërëm ko waaye doo ko wax may ma koo xam ne ñàkk na ndeyam ñàkk baayam ñàkk jabaram ñàkk doomam ñàkk këram ñàkk yërëm kooku lu mu am lu mu lay may amul dara mbokk yi nañu delloo suñu xel ci aduna jaamu yàlla sellal ko ku dee te yóbbaale bokkaale ci kanam yàlla yàlla du la jéggal sa bàkkaar te itam li ma bëgg a njëkk a wax mooy ñun ñëpp na de daa bandi daan xale yi jigéen di bonde di déglu musique jox loxo tey nañu xool fan lay mujj mi ngi nii di jooy ñoo ci bàmmeel fañ géntoon ba mu dee ñu suul ko mu ñëw fa gis ngeen ko fii la doon gént ñu suuloon ko ak fa mu tooga naan ak a neexoon ma nekk suuf bu fa ñëwee da ngay gis muy jël suuf si di ko jéeri kon géntam gi yàlla da koo bëgg moo tax mu def ko lii nag ba léegi mu ngi am mbokk yi man mii de wax ak benn xale ñëw na ci man xale bu jigéen ñi mu ustaas gént ma dee ñu ngi dugal safara ma ne ko tuubal mu ne waa danaa tuub ba léegi nag tuubagul kon gis nga ndeysaan léegi-léeg nga gént gént bu garaaw dem ci sëriñ tariyaax mu ne la saraxel nangam déedéet sëriñu tariyaax nañ ko moytu yonent bi ne na ko dem ci sëriñu tariyaax mu petta wala nan la nangam soo ko gëmee weddi nga lañ wàccoon ci man Muhammad soo ko gëmul ñeent fukki fan boo jullee kenn du ko nangu kon mbokk yi ñooñu ne leen moytu bu baax xamul buñ xamoon duñ nekk fañ nekk luyee pant rek amuñ dara lu may benn basan benn ndef yor ay we yax yu dee naan kalan-kalan yooyu benn njëriñ kon mbokk yi dañ leen nax ne lekk sa xaalis wallahi dañ leen nax nekk lekk sa xaalis kon Assane a ngi nii tey ci bàmmeel xam ne dëgg mooy dëgg mu ngi nii di xool Assane mii tey kenn dootu ko mënate nax seytaane ñàkk na ci moom ndax yàlla war na ko ni ko seytaane def ëllëg ak fa mu mujjeeg moom fii la jonkonoon naan ak a neexoon ma nekk suuf jonkoon na fa te gis nga nii ñëwaat na ci kër gi xëcc benn kaamil ko de sàngoo fii la doon wax naan ak a neexoon ma nekk suuf gis nga ko de géntam gi daa leer nañ ne mbokk yi mu xayaat di toppaat jéego yi gis nga ko de fii la doon waxee naa yàlla it ni kuntu turaaba ak a neexoon tey ma nekk suuf bu du ma dugg safara ndax balaan nga ko wax rek nga jàkkaloo bàmmeel ak safara tàngaayam ak jiit yeeg jaan yi yi nekk ci biir nañu moytu mbokk yi asan a ngi noonu di jàngal quran nañ ko xool kon fii mbokk yi fii la asan di tuubee tuub bu sell bàyyi mooy yàlla bàyyi wóogmaan bi moom yàqu na ma bokkatu tey ñun balaa ñoo kontaan nga am doom sax am ngénte di musique kalang kalang tànqal waa koñ bi sa yoon mbokk yi ko am jabar musical ko am doom musical ko yow loo sante yàlla doom teraanga yàlla bu la ko joxee taralal yàlla satal yàlla gërëm ko waaye bul tànt musique ne yàlla li moom a neex jigéen ak góor takk fecc islam tere ko xoolal mu ubbi kaamil bi la gën a doy waar mbokk yi aaya bi mu indi xooleen aaya boobu mu indi su ma yatuuba allahu min baadi zalika ala man yasha wallahu gafurun rahim fi nga ko de ba mu ngi yem ci aaya bi fii borom di wax naan suma yatuuba allahu yàlla dana leen jéggal min baadi zalika gannaaw bu ñu tuubee ala man yasha ca bàkkaar ya neex yàlla wallahu yàlla mu ngi tudd algafur arrahim ya ayuha alladina amanu inama almushrikuuna najis falaa yaqrabu almasjid alxaram gis nga aaya boobu la jël moom la dajjal ci kaamilu yàlla bi mbokk yi kii tuubam yàlla nangul na ko tax nañu góorgóorlu lii mooy faalul xasan mooy gaaf gu rafet lii gaaf la mbokk yi ubbi rek yem ci benn aaya wane yàlla ne jéggal naa sa bàkkaar moo tax day jooy xam ne yàlla nangul na ko mbokk yi xasana ngoog kon ñu ngi ko doon defee fii ñaari place lañ ko commencé yàlla ñu yàlla dimbali ñu mottali ko ñu ngi ko commencé woon fii ñu waxe woon leen ca euh, place su Seex Ba ñu ngi ñëwaat fii ci parcelle bi lañ ko mottalee ci néeg Mbàkke Mbay moom itam mu nekk koo xam ne moo ngi fii ci marché bi ci cinéma bu parcelle bi fa nekk di réparé moom itam ay matériel yoo xam ne am nañ problème lu mel ni caméra lu mel ni vidéo lu mel ni télé yooyu yëpp mu ngi foofu moo ñu defal montage bi yombalal ñu ko laaj ñu ci dërëm kon nañu góor góorlu bu baax a baax a baax ku soxla numéro am incha allah bu jokkoo man mi doon waxta maa ko joxoon ni maa waxoon sama numéro ci commencement bi incha allahu dinañ ko jox numéro bi ñu góorgóorlu itam dimbali lislaam lii nii l'islam daa soxla kase bi bari ñu traduire ko mel nii waaye ñàkk mooy képp koo xam ne seetaan nga kase bi nga pare jàppale l'islam woo ma ci numéro bi 642 26 60 642 26 60 soo ma ci wooyee incha allah dang ma jot soo ma jotee dinañu waxtaan ak yow nga loo mën a dimbali l'islam l'islam xeebul l'islam yéemul kon lii mooy film bi nga xam ne ñu ngi doon jéem suñu kemt laay kàttan di ko traduire pour ñu jàggul ñu déggul arab mën ci jëriñu seen mbokk Ousmane Diouf moo nekkoon fii ci rajo bi di wax ak yéen ak ñi nga xam ne ñoom la nekkat muy ñu baax yàlla yàlla def ñun dégg topp def ko ci yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu allahuma salli wa sallim ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين